taxaw ak koo xam ni cinéma xam na ko mu jot a liggéey ak jëmm ji nga xam ne moo fi jóge jëy muy Korka di ndaw loo xam ni jot na liggéey ak suñu tata bi nga xam moo fi jóge muy tata Myriam euh, Korka di a nga xam ne cinéma ñàkk na ko mais yow tamit ñàkk nga muy tata Myriam effectivement merci ci condoléance bi loo xam ne la du ne du wax keneen mes condoléances parce que ñun la ñun ñun ñoo ñàkk en fait mm-hmm. donc voilà. mu amoon taxawaay bu am solo vraiment ci série idole bi nga xamee ni yow ak moom tamit jot ngeen fa dund lu am solo lan nga ñu mën a wax vraiment ci jëm ji nga xam ne moo fi jóge tey muy Tata Myriam. une euh, mu nekkoon cest à yaay boo xam ne euh, Tata Myriam dafa amoon loo xam ne benn mère am ko biir Evenprod je peux dire. lu ma mm. gisoon ci moom du jugé. Mm. c'est-à-dire da def say bêtises mu xëcc la ne la kooka yow. ah xàkkataay ba pare. Mm. xëcc la moytul donc c'était une personne exceptionnelle nit ku jullite woon tamit je me rappelle bi muy su jóge màkk je pense que benn souvenir la boo xam ne bi ñu ma waxee gaañu na moom moo njëkk ñëw sama xel muy ba mu jógee màkk ñu war a tourner ay séquences idole karaw bi di feeñ vraiment une bonne personne dem na daal franchement nit ku nit ku baax nit ku bëggoon ñëpp nit ku yéene woon waa Evenprod nit nit ku ma yéene woon tamit parce que saa yu ma amoon problème je je me rappelle day yëkkati téléphone am message ma wala woo ma ne ma bul tiit bul ragal temps bon faut donc avance donc mm. tey on a vraiment perdu une bonne personne. mu nekk mbetteel ci askan wi bi ñu yëgoon ni génn na àdduna ñi sax ñu ngi naan tawat moo ko fi jëlee ndax dira bi nga xam ne mu ngi ciy feebaram daan nga jokkoo ak moom tamit waaye yan kàddu moo la gën a marqué ci li nga xam ne mujj ko wax. a métti en fait tata Mariam a dafa dafa gore ba dem. Hmm. jéemu ko waxee jéemu ko man man en fait samay séquence idole par exemple. Hmm. Euh, je sais que waroon nañ tourner ay séquence temps yi hmm. Euh, ñu koy reporté di ko reporté di ko reporté bon man waxuñu ma daf feebar dañ dañ ma nee juste à Myriam après finalement sama dernière séquence maa ngi koy tourné y a même pas trois jours mm. et la séquence dama doon wax ci moom ma ne daw na ci série bi daw na et cetera nekkee nekkee daf feebar et c'est le pire c'est-à-dire nous on, on n'était pas au courant ouais on n'était ah. pas au courant on n'a pas pu lui dire au revoir Très bien. tournage yi amal rawatina ci li nga xam ne mooy idole nga xam ni joué na ci lu am solo ban moo la ci gën a marqué Korka Euh, je pense que am na am na am na benn séquence boo xam ne euh, dama dama dama ñëw ñu war a tourner séquence boo xam ne dama koy menacer je pense jour boobu mu ñëw di ma diir mbagg rek a di ñëw na di ma diir mbag di ma tooñ di ma franchement en fait Tata Myriam toutes les séquences que j'ai jouées avec elle ont été bien parce que c'est une personne entière c'est une personne elle aime donner et elle a aimé le cinéma jusqu'au bout donc mënuma la wax séquence bi moom ma gën a touché mais je sais juste que souvenir bi may garder ci moom encore beneen euh, ba mu ba mu jógee màkk dafa ñëw ne ma Korka ñaanal naa sa yaay loo xam ne tamit du ñëpp dañuy dem màkk mais du ñëpp ñooy fàttaliku yaayu Korka wala genre yooyu noonu et voilà. sa dernier moom lan moo la ci gën a marqué ci kàddu boobu la mujjee wax Korka ba sër sa xol rek euh, euh, dernière question. mais que suñu dernier échange mooy jour boobu ma ko gisee. ñu def tournage mooy bi mu jugee màkk bi ñu demee tourner. et li ma gën a marqué tey mooy la dernière fois que je l'ai vue elle m'a parlé de ma mère ñaanal naa sa yaay et aujourd'hui c'est elle dañ lay jiital rek di la massawu di la jaale bu baax mais yan kàddu ngay dégg euh, doomam ji nga xamee ni jamono jii ñu bari ci askan wi yaakaar nañu ko culture yaakaar ku muy Virginie. na yaayam comme ni ma ko waxee yaayam dafa bëgg cinéma ba dem euh, am chance. ñu dugal ko ci donc moom aussi na na góorgóorlu fulla gi yaayam amoon ci cinéma ba kenn yebu ko ci moom tam mu def lépp ba am fulla boobu voilà merci ñu ngi lay masawu baax a baax merci alors ba tey spécial hommage à suñu tata Myriam Ndior bi nga xam ni moom la culture ñàkk tey Sénégal ñàkk ko tey ñu ngi ak xele boo xam ni euh, bokk na si ñi nga xam ni jot nañu liggéey ak moom lu yàgg a yàgg euh, muy Abdelwan bi ni lii di série Idole xan ràññe woon nañu ko euh, ki nga xam ni mooy jëmm ji fi jóge tey Abdel dañuy jiital rek di la masawu di la jaale ki nga xam ni vraiment culture ñàkk na ko Sénégal ñàkk na ko mais yéen aussi ñàkk ngeen ko yéen ñi nga xam ni yéen ngi doon liggéey ak moom fii la ci Evenprod dëgg la dëgg ñu tamit ñoo ngi di masawu parce que je Sénégal ñëpp a perte et le monde du cinéma sénégalais ñëpp a perte bon euh, dëj bi nag bett nañu torop parce que man personnellement gëjoon nañu déggante. Hmm. te yëgu moon ne sax dafa feebaroon malheureusement mais bett nañu te ñu ngi jaale Sénégal yëpp ñoo ngi jaale monde du cinéma hmm. waaw. yan échange nga mujjee am ak moom ki nga xam ne mooy jëmi ji fi jóge jee muy Tata Miram Ndior. bon Tata moom xam naa ne. C'était comme une mère en fait parce que on a une plusieurs fois tourné dans beaucoup de séries elle a représenté ma mère sama yaay la sama rôle yaay la doon donc mis à part même les séries tout le temps bu ñuy waxtaan ay tooñante la wala ay conseils yi may jox di ma encourager parce que des fois euh, dañuy subir yenn affaires yu xaw a ñaaw yu xaw a métti si xol comme que ñoom moo ñu mag et tamit elle nous sert toujours de maman moom xam na am na expérience bu rafet la ñu wan tout le temps elle xam nga du ñu bégloo du ñu du ñu encouragé du ñu reetaanloo foo ko mm. fekk. day fas da ngay toog ni mu envoyé benn message juste pour pour pour euh, tooñ la. pour nga relation yemul woon rek ci série bi tournage yi wala relation non c' est pas seulement les relations dans les bu ñu fekkee tournage sax bu gars yi toogee wéet defuñu dara day ñëw tooñ ñëpp. pour gars yi nekk si ambiance gars yi kafre loolu loolu lañ ko xamee en fait. foo ko fekk day reetaan jàmm lañ sekk ak moom. te jàmm la ñuy won xool bu rafet la ñuy won donc du coup tey moom day bii daf ñu bett vraiment bon métti na torop métti na torop mais li yàlla def moo gën moo gën quoi waaw. Hmm. Euh, nga jot tournée ak moom ci lu yàgg yàgg ci li nga xam ne mooy idole ndax mën nga ñu fàttali rek benn image boo xam ne vraiment marqué woon na la ci moom si tournage bi même après tournage bi aussi ba léegi mu ngi des di nekk ci archive. <laughs> Euh, waaw waaw sincèrement démb si guddi rek bi may yëg dëj dëj dëj bi ay 2 heures la. bëgg ma xoon wax sama yenn xarit dama naan may xaawa tey suba ma wax ko mais bi ma ko yëgee sama photo yi laa njëkk a dugg am na benn image par exemple bu ñuy tourné sama sama séquence su décès bi sama sama sama suicide bi bu muy sëgg sama kaw xam nga di jooy naan ñàkk na doomam et cetera en fait sama m'a ça m'a touché en fait bien vrai que cinéma la woon mais après da gis tey méttitu méttitu xolu yaay bu perte doomam xam nga ak euh, émotion bu mu génnee bi mu ko jëlee si xol xam nga li mu li mu demoon quoi ça m'a vraiment touché ba dem si guddi rek maa ngi ci doon xoolaat encore

ban vide nga sentir ni jamono ji mën na ko am ci li nga xam ne mooy culture cinéma d'une manière générale. oui comme je dis hein euh, c'est une femme euh, très joviale boo xam ne carrément tey ñëpp ko ñëpp a ñëpp a kontaan ci moom ñëpp a lu baax ci moom. du coup tey bu fi nekkatul euh, du neex ci xol neexu ci xol parce que tey boo di nga dem plateau sax. ñu war a defaat yenn séquence boo xam ne carrément elle devait boobu noonu parce que mbégte mu doon indil gars yi xam nga contentement bi joie bi mu doon indil gars conseil yi doon jox gars boo ko amatulee tey day am luy manqué ci yow quoi mais bon dañuy sant sant yàlla rek li yàlla def moo gën et puis voilà quoi mu am kenn ci njabootam koo xam ne jamono ji culture commencé na ko xam muy Virginie bi nga xam ne jamono ji série vraiment bokk na ci série yi nga xam ne ñoo mujjee cartonné fii ci Sénégal yan conseil moom nga jàpp ni moom la ñu war a dimbalee xale bi jamono ji waaye tamit loxo yi nga xam ne ni fa la nekk jamono ji di fi liggéey muy Virginie bon Virginie bon su on dirait je dirais que suñu petite sœur la mais sama xel dal na ci moom parce que elle est elle est elle est très courageuse déjà elle est que jot nañu waxtaan à plusieurs reprises sur les de la vie on sait carrément que Euh, yar na ko am na lu mu def si bopp bi et elle la tête sur les épaules en donc mais ñoo si ciy profité di ko jaalewaale di ko sigil ndigaale xam nga mu qu'elle a xam ne culture ñàkk na ko tey Sénégal ñàkk euh, ndaw boo xam ne xam nañ ko si culture rawatina ci série bii di As Moussa dañuy jiital rek di la masawu di la jaale bu baax a baax ki nga xam ne tey culture ñàkk na ko mais aussi Sénégal ñàkk na ko muy Tata Myriam. def témoignage ci une grande dame boo xamante ne euh, monde bi adduna bi ci boppam moo ko ñàkk. parce que maman Myriam nekkul woon juste une une bu ñuy gis à la télé mais elle était elle était plus qu'un collègue. elle était elle était une mère c'était une une grande dame une dame de valeur une dame de classe boo xamante ne dafa boole ñëpp muy mag ak ndaw boole tout le monde ñu nekk benn di leen conseiller di leen orienté lu mu gis na ko dul noonu mu woole ne la ah mon fils nii ak nii li wax nii ak nii waaw mon fils félicitation mon fils lii ak lële euh, kooku la ñu ñàkk kooku la adduna bi ñàkk ndax amoon ngeen relation en dehors de cinéma wala seen relation ci cinéma rek la yemoon ak yan kàddu nga mën a wax si jëm ji nga xam ne moo fi jóge tey waaw parce que cinéma cinéma moo ñu boole benn série bu ñu doon defandoo ensemble mu nekkoon ci sama yaay. donc ci la ñu xamante mais malgré cela loolu bi mu jàllee on a gardé de de bonnes relations. Mm. Euh, personnellement man dama yor benn agence de de top modèle. Mm. moom ñëw na fa ba bokk ci sama agence leen ma ay doomam. Mm. ne ma say rakk lañu ñu dénk naa leen. teg naa ko sa loxo. man tamit même chose dénk naa la sama bopp lépp lu jëm ci wàllum image. loo ci gis rek gis ne lii gis nga ci Tata Myriam rek n'hésite surtout pas te ni mu ma ko waxee noonu la ko continuer à chaque fois que suñ doon am dara suñ ko soxlaa elle faisait le déplacement daal di ñëw bu ñëwee daal di wuyu si et tout te en dehors de ça parfois mu woo ma ne ma ah kii ak kii dafa am lu ñu proposé woon pour lu jëm ci publicité bi ci lii ak lii laaj ma ci sama xalaat malgré que moom a mag am na ci expérience bu bëri su ko neexoon rek ne sama xel kese doy na ma mais euh, dafa nekk nit koo xamante ne dafa wàccee boppam maase ak tout le monde lépp lu mu soxla day ñëw wax la ko lu mu gis nag sul noonu day ñëw wax la ko mm. donc demoon nañu ba relation yu ñu amoon dépassé na relation professionnelle mu nekkoon relation amicale relation mère ak fiis mm. alors li nga jot a joué ak moom ban image ngay fàttaliku ci moom boo xam ne vraiment marqué na la ci série bi mais également relation yi nga xam ne ni daan ngeen ko dund yéen ñaar en dehors de li nga xam ne mooy vie professionnelle loo xam ne vraiment marqué na la ci moom waaw parce que euh, série bi image yi moo si gënoon a mooy début bi ñuy ñëw di wax naan dañ ma bëggoon a takkal jabar et tout man ma ko déedéet am na keneen ku ma bëgg nañu bàyyi lii ak lële donc ni mu doon waxee ak man commencé di wax que ne yow dañ laa reewal dañ la def lii mësuñu la bañal dara donc kàddu yooyu dafa ma marqué woon parce que di nga gis ni ko xam ne dina nekk ci famille euh, sa yaay du la bañal dara ñu nangul la lépp ñoom ñu bëgg dara mu doon loo xamante ne sa sa avenir la sa intérêt la yow nga bëgg ko doxalee neneen donc moom leçon bi mu doon joxe foofu noonu c'est pour dire que ne aux enfants ñoom seen ñoom en tant que parent bu ñuy ñëw di leen xelal dara di leen conseil wala di leen proposer dara c'est pour leur bien ñoom en tant que parent def nañ seen wargo dañu bëgg doom yi daal di ñëw mën a assurer relève boobu donc c'était un message vraiment fort qu'il voulait faire passer à travers ça ni aussi vraiment bari loo xam ne mënoon na ko apporter la génération bees ci culture ndax gis nañu œuvre bi nga xam ndax du perte boo xam ne vraiment dina nekk perte bu mag ci li nga xam ne mooy culture. Euh, tantôt wax naa la que c'était c'était une grande dame une une une femme de classe une femme de valeur une femme avec des qualités hors pair c'est ce que le monde a perdu je ne parle pas uniquement en culture mais c'est ce que le monde entier a perdu et j'en profite pour euh, jaale adduna bi yëpp jaale les acteurs cinéma jaale ñëpp ñu nekk ci art bi ñëpp ñu nekk ci culture bi di leen mastawu di leen wax que ne euh, ay jullit lañu lu suñu borom def rek dañ koy nangu malgré que metti na c'est pas facile à accepter mais dañuy nangu ndogalu yàlla xam ne euh, ñu baax ñi kenn desatu fi ñu baax ñi kenn desitu fi te am nañ si yaakaar di profité di ko jaale waa këram di ko jaale famille am hmm. di ko jaale doomam yi Aysatu surtout mi ngi a xam muy Virginie di ko mastaw nag que yan kàddu ngay jëmale ci moom comme xelal man dama ci am yaakaar bu baax parce que je sais que yaayam teg na ko fu mu ko war a teg éduqué na ko nu mu ko war a yar na ko nu mu ko war a yaree euh, teg na ko si yoon donc même bu fi yaayam nekkulee xam nañ ne ombre yaayam dina continuer di ko marqué te loolu dina continuer di ko topp donc ñun en tant que grand frère tamit lépp lu ko mën a accompagner lu ñu ko mën a jàppale o va continuer à le faire malgré que yaayam nekk fi physiquement mais elle sera toujours dans nos cœurs dans nos prières et dans nos pensées merci euh, a baax merci beaucoup